wax na ci lu jëm ci wàllum ñàkk yi nee na ba léegi bëri na ay sénégalais yoo xam ne dañoo lànk kandaare bañ a ko am na si ñoo xamante ni gëmuñu ko te bëri na ay sénégalais yoo xam ne bala ñoo ñàkk dañuy dem ba jàpp ne seen wàllug wér gi yaram daat nay gën a jagadi daat nay wax ci ñi nga xam ne ñoo fas yéene dem Touba nee na Touba kenn wuru faa dem te ñàkk wa kàddu yu Mamour Cissé la ma ngi ci yéene kaay gi di réew mi quotidien kaay gi di direct news nee na que ñàkk yi am na Sénégal ndax ñàkk yi manqué wuñu loolee ay laaj la yoo xam ne journal bi moo xëy di ko bi di réew mi quotidien Mamour Cissé na may ma ma yeggale fii ci Sénégal bëri na ñoo xam ne duñu dem ci hôpital yi bëri na ay sénégalais yoo xam ne duñu takk masque moom Mamour Cissé mel ni lu mer ba futu nee na sunu frontière yi nga xam ne nee na wàng te nag Sénégal dafa yor benn peuple boo xam ne dañoo indiscipliné peuple sénégalais dañoo indiscipliné kàddu yu Mamour Cissé la nee na a askanu Sénégal maanaam yaru wu ñu daal te ko yaru wut nag da ngaa xamadi yéen a kaay gi nee na gros mot yéen a kaay gi di vox populi ak le soleil xëy ñu xibaar naan ñu covid 19 bi lu toll ci benn million ci yoo xam ne ñàkku nañu yéen a kaay gi xëy di ñu dara naan ñu coronavirus bi li ci ëppee lépp Dakar la nekk ndax téeméer boo jëlee juróom-ñett fukk yi ci cas yi ma ngi Dakar maanaam quatre-vingt pour cent ci cas yi coronavirus yi Dakar la féete yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba de sàll mooy jamono ji coronavirus bi ma ngi rey ndax lu toll si ñaari fan am na lu toll si ñaar fukk ak juróom ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan am na lu toll si junne ka ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne amee nañu woppi coronavirus Assane Samb bu xëy jël xalima na nag est-ce que waaru wule na ci Sénégal ba na ñoo xam ne gëmuñu vaccin bi am na ñoo xam ne dañuy birale ay xibaar yoo xam ne dafay andi nag jiixi jaaxa ci xelu nit ñi te ñooñee ana lan la ñu ciy gañee te nag mbir mi war na sérieux jamono ji bëri na Assane Samb ne li ma jaaxal ci mbir yi saa sunu xëyee armel yi embouteillage am fa maanaam ñi nga xam ne ñoo doon dee mbir mi nag dafa gën a yokk waaye ba léegi ak discours bu ñu mën di wax am na ñenn ñoo xam ne ba léegi gëmuñu vaccin bi gëmuñu coronavirus jëluñu seeni matukaay yéen kaay gi de la sa ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr neen nag ñetteelu vague bi léegi tey kenn dootu ko déggati ci Sénégal alhamdulilah yéen kaay gi di direct news xëy dañu xibaar naan ñu hôpital Albert Royer bi nga xam ne moom la ñu jagleel xale yi bloc opératoire ba jamono ji dañu ko tëj la ko waral mooy taax ma moo wóoratu la yéen kaay gi di réew mi quotidien ak la tribune nee na kuréel gi ëmb magistrat Sénégal jamono ji am nañu njiit lu bees Ousmane Chimère Diouf lay wuyoo yéen kaay gi nee na Souleymane Teliko la remplacé Walf Fadjri yéen kaay xëy wax ci élection locale yi nee na ñi nga xam ne ñooy opposition bi bu ñu booloowul maanaam nag danañu tuskare yéen kaay kaay gi di enquête xëy wax ci mbiru loka Africa coow li doxu diggante Amadou Ba ak doom ji di Khadim Ba journal bi nee na fan yi ñu génn Amadou Ba dañu ko convoqué ci brigade bu Faidherbe ba journal bi nee na convocation boobu nag ak déglu bi nga xam ne déglu nañ ko Amadou Ba jamono ji nag yëngal na gendarmerie bi ndax ñi nga xam ne ñooy kilifa yi mbir ma neexul leen ki nga xam ne nag mooy commandant Adama Mbengue mi jiite brigade Faidherbe ba moom nag moo nekk coupable waaw wala déet li am ba desal mooy jamono ji jël nañu ko yóbbu nañu ko RDC journal bi nee na nag parquet bi joxuñu ko woon ndigal ngir nag mu déglu ki nga xam ne mooy Amadou Ba yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ak L'As ñu xëy fekk fa Boubacar Seye bi jiite Horizon Sans Frontières nee na lu toll ci quatre-vingts sénégalais ji ñoo ngi sonn ba maara day taali fi nga xam ne nag mooy Maroc jamono ji ñoo ngi woo état bu Sénégal ngir nag mu daal di leen di wàllu yéenekaay gi di critique ñu fekk fa askan wi nga xam ne ñoo dëkk mbaan askan wi yeewoo mbaan ñoom nag nee nañu conseil municipal bi dafa jël lu toll ci mille six cent soixante et un jox ko benn libaane ñoom nag nee nañu lii nag mooy deal du siècle yéenekaay gi di l'info xëy wax ci lu jëm ci wàllu njàng meeg njàngale mi nee ministre bi ñu dénk njàng mu digg doomu mi dafa am benn programme boo xam ne fukki milliards la ngir ay tenue scolaire waaye nag bëri na ñoo xam ne ñoo ngi ci njàng meeg njàngale mi ànduñu ci benn yoon ci programme boobu ku ci mel ni Cheikh Mbaw bu Kosidepa nee na nag xaalis bi nga xam ne bëgg nañ see def ay tenue maanaam nag dañ ko war a jël tabax ci li nga xam ne mooy ay salle de classe ak ay table pain ak nga nay naam ne fa Moustapha nee na nag lii provocation dëggantaan la ak fi réew mi toll nga naan da ngay jël